اوكي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي دلو سنتر سنبرم سبحانه وتعالى ci lim ñu wërsegal ñu dajawaat ci néegam bu tedd bi fas yéene jël jàng ab téeréem ci biir shahru ramadan tey jii nekk suñu fukkeelu fan ak ñaar ci weeru màgg wu tedd wi ngi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul suñu daje bi ca ñi nga xam ne it ñoo koy topp ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ñi ngi ñaan yàlla boole ak ñi nga xam ne ñooy sabab boobu di mbokki xam sa diine yi ak télévision bii di Islam TV ñun ñëpp yal nañu yàlla boole ngërëmam te boole ñu la nga xam ne mooy njëggalam ak yërmandeem euh, dafa mel ne Cheikh Ousmane day def ñaari rakka ñuy fàttali rek ne euh, daje yi nga xam ne nii dañ koy daje la nga xam ne moo ci gën a nekk jublu way mooy nga looy booy génn sa kër génnel ci ni maa ngi yéene ji am lu ma sàkku ci xam-xam yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na mboolemi malaaka yi nga romb ci yoon bi yépp dañuy wàcc seeni laaf ngiri màggal ci dox bu tedd boobee nga xam ne ngay doxi gannaaw loolu itamit teewaay ba nekk teewaayu njëggal ak yërmande comme ni ngeen ko yàgg dégg kon ñi ngi ci ñaar aaye ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu saad fi suñu borom di waxee ni wa ma xalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma batila insha allah bu dee cheikh ousmane fare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه <clears throat> إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم سبحانه وتعالى مني وما خلق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ñun day bind ñu asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi doonte ne loolu mooy njoortu ña nga xam ne dañoo weddi fa waylun lillazina kafaru min annar alkaange ñeel ne ña nga xam ne dañoo weddi ci sawara bu leen di xaar am najalu allazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fi l ama ndax daañ def ñi nga xam ne dañoo gëm di jëf jëf yu baax ya ñu yéemale leen ak yàqkat yi ci kaw suuf am na naj'alul muttaqiina kal fujjaar ama ndax dañuy def ña ragal yàlla ñu yeme leen ak ña féttéerlu bew jaar fa fa leen neex génnuk topp kitaabun anzalnaahu ilayk ay lii day téere la boo xam ni ñun yàlla ñoo ko wàcce jëme ci yow mubaarakun muy lu ñu barkeel li yadabbaru ayaati ay ngir nit ñi nekk di settantal ay aayaam وليتذكر أولو الألباب وايت مو دي فاتلوكو بولو خيل يو ماتي مي الباب ووهبنا لداود سليمان نيل مي يونت يالا داود كي دي سليمان نعم العبد جامبو با خنغوك انه اواب موم دادان صح دي دلو تي يالا دي توب دي تروخلو جيم تي موم اذ عليه بالعشي ba ñuy gaaral ci moom ca ngoon yi ga la nga xam ni anchi mooy fi tisbaar di jote ba waa fa jante ba di sooy ñu gaaral ci moom assafinaatul jiyaat assafinaat wala fi dañ koy wax fasu naaru góor mooy fas yi nga xam ne bu ñu bu ñu taxawee seen benn tànk dañ koy yëkkati nii te mooy fas yi nga xam ni seen entraînement mat na sëkk al jiyaat ñi nga xam ne ay dawkat lañu mooy fatu fas yu mat rek سافنات الجيا فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي من من دي جنلنا بغ علل الخير دنجكاي سيري علل مون بروم بي دي واخنان وترك خيرا الوصيه للوالدين كون حب الخير ماغي بغ علل جي عن ذكر ربي ba gëne la فاتلوكو ci fàttaliku gi ma war a fàttaliku sama borom xataa tawaarat bil hijab ba kiiraay ga mooy jant ba sono ruddooha alayhi delloo waat leen ci man fas yi fa tafiqa masxan noonu la commencé di laal bi suuqi wal anaaq ca loos ya ak ca mi ca yeel ya ak ca loos ya te masxan boobu ñu ngi ci jublu la nga xam ne mooy dóor gam ko doon dóor di dagg seen loos ya mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii nii bindul asamaan ak suuf ngir neen donte ne yi firi loolu lañ jort bokk suñu boroom bu dee julit yi ñoom lu ñuy wax inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wal nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila jullit yi ñoom dañuy xalaat ci asamaan ak suuf di xalaat ci temps muy leylu wa nahaar di fàttali ko seen boroom ko defee dañ naan yàlla bindoo li ci neen mbokk suñu boroom lu mu bind rek dañ ciy wone kàttanam xereñeem yërmandeem ñeel ay jaamam jant bi la weer wi la biddiw yi la nuage la garab yi la géej gi la lu mën a doon kattanam da cay feeñ xikmaam feeñ ca yërmandem feeñ ca ca moo dina ku ko settantal gis ci loolu lépp looloo tax woykat ba ne wa fi kullin lahu aaya tadullu ala annahu alwahid lu mën a doon rek da gis ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala de waaw suñu borom wa taala def na ca kawtéef màndarga bi wane ni yàlla kenn la am yi firi ñoom àdduna jeex na bu jeexee jeex na kon mboolem li yàlla bind yépp amul benn njëriñ borom bi subhanahu wa taala nag ne alkaa nga ñeel na leen ci ñoom safara beneen xaar waaw yéen naka lay boole ñi nga xam ne dañoo nekkoon gëm seen boroom jalla wa ala di def lu baax ma yemale leen ak saay-saay si ñu bokk ni ñu juddoo bokk ni ñu dee éterminé ndax man danaa yemale ñi ragal yàlla ak ñi nga xam ne dañoo féttéerlu mbokk loolu xel mënu ko nangu te mbokk ki gëmul àllaaxira nga laaj ko rek benn laaj masalan bu mel ni kenn ci jullit ñi laajoon kenn ci waa Makka yi ne ko waaw ñun waa Makka ak ñun waa Faris ak waa Ruum nga xam ne moo nekkoon empire yi gën a mag jamono yonent bi kan moo gën mu ne mais ñun ñoo gën ñun waa Makka kay ñoo gën ñun ñoo dëkke dëkke xaram bi ñoo dëkke kaabe gi ñooy kaza ñooy kaza mu ne ko waaw bu dee ci wàllu àdduna nag ñu ne ko waa Faris ak waa Ruum kan muy ëppale adduna mu ne ko waaye xam nga ne kay ñu ñu ëppale àdduna téeméer million mu ne ko allaaxira bu amul ëpp ëppale mooy gën giñ leen gën ban njëriñ la am waa ji na ko sëñ bi wax nga dégg kat ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu an muhammadan rasulullah ca mbokk yi da ngay xool ay président nekk ci kaw suuf di mbëru di rey nit ñi jël yu nit ñi noo si ko ñoog seen njaboot agresseur ba fële dem ñëw rey ay famille jël seen alal kenn gisu ko waaw loolu lépp mbokk su doon ni allaaxira amul léegi kooku ban njëriñ la ñi baax gën a ñi bon kon borom bi moo tax mu ne binduma asamaan ak ngir neen yéen doomu aadama yi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bu dee atte bi jàpp ne ne daa ñëw kaw suuf par hasard ñenn ñi atte yi ñuy dundal donte ne yéefir yëpp mas ñu gëm yàlla leen bind waaye jàpp nañ bis bu ñu dee c'est terminé waaw kon yàlla lu mu la doon lan la doon doy nga dund nekk sa bànneexu bakkan rek déedéet yàlla mu ne dama biñ ni teg jinne ngir ñu jaamu mbokk ab jaam nag mooy def ndigali sangam looloo tax yàlla duñ ko jaamoo suñu suñu xalaat bal yàlla dañ koy jaamoo ay ndigalam moo tax mu yónni ñu ay yonent tey jii ñu ngi ni daje ci néegub yàlla bi léegi lañ julli tàkkusaan def ko ñeenti rakka léegi timis jot ñeenti rakka lañ fa dajé 5 fois par jour ko koor gi lo loolu lu tax mënuñu ko comprendre xamuñu lu tax yàlla def 5 prières xamuñu suñu néew ci ay jaam lañu dañ koy déggal 12 mois yàlla ne wor leen ben lu tax xamuñu pourquoi mu jël wéru cheikh ramadan xamuñu ay jaam lañu dañuy exécuter ca modi ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun kuma xalaqna as samaa wal arda wa baynahuma batila mi ngi noonu borom boobu yit lim la wax ni ñi ragal yàlla du yem ak kaccoor nga la way ndawal julit gannaa yoon loolu xamal ni ci gëm yàlla ragal yàlla ak mujjam ci àdduna ak alaxira du yem mukk ak saay-saay bi tapp bànneexu bakkanam loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax ñu borom yàlla ñi ragal yàlla leen defal aqiba wal aqibatu lil muttaqin ni ngi noonu borom boobu nag gannaaw loolu ca la ñëw tagg téeréem bi ñu ngi sant suñu boroom bi mu ñuy fekkee ñu tiim ko mu ne lii de téere la boo xam ne ñu ni yàlla ñoo ko wàcce loolu rek doyoon na ko teddaange moo ko alxuraan ci yàlla la jóge kese dayoon na ko teddaange doyoon na jullit ñi ittewoo ko seen kemtale kàttan wallahi ah, inspecteur Samb mi ngi may nettali benn waay daa ñëw toog ci benn mbooloo bu mujj mu weg caaye ji ne caay ji day ci sama bàyyi laa ko jële sëñ diw moo ko ko may gaa na ah jëkkante caay ji xotti ko <laughs> ku nekk ku nekk dagg am morso yóbbu <laughs> yaa ngi dégg <laughs> na caay ju jógu sëñ diw mbokk léegi nag alquran ji mbokk ñu ne rek ci yàlla la jóge wallahi doyoon na rek jullit ñi bëgg ko fonk ko tapp ko mi ngi noonu loolee ñu ngi noonu euh, internet bi lu ne lañ ci lu ne lañ ciy dugal doo mën a contrôler lay dëgg ak lu dul dëgg waaye temps yi ñu ngi gis benn dëkk ci Chine dañ leen tere woon ñu dugal fa alquran après nag loolu ñu dindi ko kaamil yi ñu fa jëkk a dugal jullit ñu ko gis ay góor ay jigéen ay xale jël kaamil yi ngooy ci di jooy na kontaan yor téere borob bi ñun comme dafa bari ci ñun toppatoo duñ ko sax ndax ak bari ala kulli xaal suñ borom mëna a wacce ko anzalnahu ilayk ba pare barkel ko mubarak mbokk alquran yi ngi ni yalla barkel na njàng mi xarfa bo jang am nga fukki tuyaaba yalla barkel ni la nga xam ne ni mooy jefe ko kep ku ko top hudiya ila siratal mustaqim yalla barkel ak dundam kër guñ koy jang kër ga barkel. képp koo xam ne nii atte na ca atte lu barkeel ku ko fajoo dana doon lu barkeel léppam jalla wa ala barkeel na lépp loo xam ne dafa aju ci téereb yàlla bi subhanahu wa taala waaye nag barkeel boobu rek ndax kon pour ñu barkeeloo ko rek mooy meublé ko suñu oto yi meublé ko suñu bibliothèque yi gannaaw loolu bu bàyyi dee ñu wàcceel ko ko bu ñuy bind saafara bind ci diwoo ila axiri déedéet borom bi dane li yadabbaru ayaati yata dabbaru settantal ay aya mbokk aya bu nek aya moy mandarga ben preuve la mandarga di ndigal bu joge ci di jullit ñi war ko settantal aya bi lan lay wote ah aya bi day dalay won da nga wara a wéetal sa borom bi nak bi day dalay digal ni da nga wara julli be nak bee da lay tere lekk riba bee nag mooy aaya bu nekk am na taxawaay bu ko taxawa jóg su ko defee ñi settantal suñu aaya yi wallahi xatta suñu maam yi fi jaaroon am na ci koo xam ne mi ngi bind ne benn aaye boo toogoon settantal ko ba comprendre ko moo gënoon nga xëy jël kaamil bi yëpp jàng ko gis ngeen kon toog di settantal aaya yi borom bi loolu moo ñu tax a toog fii mu ngi noonu moo ñu tax a toog fii ay bu nekk ñu xool lañ ca yàlla subhanahu wa taala ubbee loolee ñu ñu ñu daal ko cay wax boroom bi subhanahu wa ne waaye mu fàttali ko it boroom xel yi ca mooy gannaaw ba nga settantele aaya bi ba xam ni lii la yàlla bëgg ci yow loole na nga def ko gànnaay mu ànd ak yow mbokk alquran day ànd ak yow ca marché ba ca atelier ba ci tribunal ba ci tukki ba foo mën a nekk da ngay gis ne Ah, suñu borom yàlla am na lu lum la tegtal ci téeréb yàlla bi ne leen nii nga ko war a jëfe nii nga ko war a jëfe loolee li yatazakkaru ulul albaab al albaab al lubbu mooy li gën a baax ci lu mu mën a doon dañu mel ne rek nen lubbu mooy lu jaune ba ca nekk garab am na la nga xam ne mooy ci biir loolu lañ ci du lubbu doomu aadama yi ñoom ñëpp am nañ xel lu dul ñu néew mooy dof yi ñooñu moom un virgule nangam la pour kii mais nit ñi am nañ xel waaye xel yi ñaar la am na ñoo xam ne seen xel mooy xelu mën a xam mën a xam loolu mooy yéeféer yi xam nañ àdduna fexe nañ ba naawal avion yi fexe nañ ba lu ne créé nañ ko waaye nag mu des nag xel boo xam ne nii xel booy jëriñoo settantal la mu jëriñ la loole mbokk lu néew ci doomu aadama yi ñoo ko am looloo tax bu ñuy tuddee al aql suñu borom dañ ko wax ci alquran plus de 300 fois amma ulul albab seize fois la ñëw te moy ñi nga xam seen xel utiliser nañ ko nak xam man mi kat yalla daf ma indi ci kaw suuf ngiree ma jaamu ko dund gi léegi mu jeex waye yalla mi mi indi won pour la première fois dana ma déclarer ma rendre compte ci sama dund gu njëkk ga fexé nak ba dundam yépp mu tënk ko ci li neex yalla lolu ñu neew la moy ulul albab ñoo rek ñoo ci fateliko lool it mbokk ñuy bàyyi xel lu bari ci suñu nit ñi dangay am doom naa doom ji daara rek la ko yóbbu na am baax na de nga yóbbu daara ba mu tari alquran léegi nag nga wutal ko kees yóbbu Sandaga wala kolobaan boo commencé pince bi ñaata suure bi ñaata nangam bi ñaata mbokk mokkal alquran taxul nga xam diini l'islam mokkal gi loolu base la bu am solo bu baax sax waaye nag alxuraan joojee nga mokkal fokk war war nañoo dem ñu leeralal laal ne le lii lii lay firi lii lii lay firi ba nga xam ko li dabbaru ayaati borom bi daal di bàyyi loolu dellu siwaat ci neexaayu alxuraan mi ngi la doon wax histoire ki nga xam ni mooy daawuda ci lañu nekkoon démb mu lay nettali histoire bi ba xëcc sa attention attention nga bàyyi ko ci kii wax xissa bi mu dugalal la ci nag lu ëpp solo histoire daawuda gis nga te muy téeréb yàlla bii gannaaw ba nag doog a dellusiwaat nag ci daawuda alayhi salaam mu ne gis nga daawuda mu moo la doon wax démb nga xam ne moo defoon erreur ci jugement ba mu ne waaw ba tuub dellu ci yàlla mu ne waaw yàlla mu ne la ma ko fay mooy dama koo gën a jegel sama bopp waaye it may ko doom joo xamee ni nii moo koy gën a yaatu atte moo koy gën a yaatu nguuru gis ngeen mu ne wahab naa li daawuda suleymaan suleymaan boobee nekk ni'mal abd innahu awwaab suleymaan judd na fekk baayam nekk buur gaa yi xool leen buuru àdduna bi en Afrique en Asie xoolal doomi buur yi naka la ñuy mooy jàpp nañ ne noos moo taxoon yàlla bind leen suleymaan moom ne jigéet fekk baayam nekk buur nekk yonent mu daal di sax ci dellu ci boromam subhanahu wa taala nekk awaab heure bu yégee def na bàkkaar dellu na ci yàlla di toroxlu di ñaan yàlla borom bi di firi di wax nag ni bi mu demee ba ram ba wuutu baayam te gis nga suñu borom mu ne damaa may daawuda suleymaan loolu muy wone ni bokk na la gën a rëy lu yàllay may doomu aadama may ko doom ju baax lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yasha yahabu liman yashau inasan aw yahabu liman yashau zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inasa la gën a màgg mooy may la doom ju baax mu ngi noonu mu may ko suleymaan suleymaan wëlbatiku donn daawuda ma ngi koy wax feneen warisu suleymaan daawud léegi moom mooy buur bi léegi bi mu nekkee buur suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal mu ngi amoon ay fas yoo xam ne mi ngi ko doon entraîner pour jihad xam ngeen suleymaan jihad kat la woon gis ngeen bi mu yónnee lettre reine Saba ne ko gis nga soo ñëw soo ñëwul jébbalu si ci yàlla danaa la indil armée boo xam ne laa xibala laka biha am noonu la ma ko waxatee lakum biha wala nuxrijannaka minha azilla wa antum saaxiroon su ngeen ñëwul tuub si ma day danaa leen yónnee armée boo xam ne du ngeen ko mën a dékku te doon ci ne ren bi saba bi mu dajalee la nga xam ne état major général des armées yam yoroon dañ ne ko nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin shadid gis nga ren di saba ñun armée bi nga yor ñun am nañ kattan am nañ dëgëraay waaye Souleymane mu ne gis nga seen loolu ngeen di ko bis bu ngeen néewul danaa leen fekk seeg loo xam ne da ngeen ko mën a dékku kon ñu indil ko fas yi fas yi jihaadkat yi te fas mooy la gën a màgg ci jihaad avant matériel de combat di xew suñ masaan dem di jihaad bi sallallahu alayhi ñi nga xam ne dañoo waroon ay gileem buy séddali ñi waroon fas ñaari cër la leen di jox daana wax ne al xaylu maaquudu fi nawasiha al xayru ila yawm al qiyama la nga xam ne mooy fas yàlla dana def def na yiw ci la nga xam ne mooy jéem ba ba yawm al qiyama gis daana wax al xaylu al xayr fas dal yiw la léegi fas yi di fi fili Souleymane di seetaan di seetaan di seetaan waroon naa julli tàkkusaan julli fajar julli tàkkusaan ci diine yëpp la am fas yi défilé di défilé di défilé ba jant bi so suleyman ni bismillah jam maa ngi banni ko fas yi ba fatte duli takosa gis ngeen loolu nek ben fitna donte ne ni mas na dal yonente bi alayhi salatu wasalaam moom ci benen kala won mok sahaba yi kero ghazwatul ahzab amna ben bis ñuy sàttan sànnante ay flash di sànnante ay flash ba ba takusan ba ba takusan di passé umar ibn al-khattab mu ñu koy netti mu ne bi mu ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne mala allahu quburuhum naara e way yàlla yàlla feesal seen bàmmeli sawara shaghaluna an salati al-wusta fexe nañ ba julli wuñu salatul wusta loo tax ikhtilaf bu rëy am na ci borom xam-xam yi lan mooy salatul wusta waaye hadis bu mu ñuy tegtal na mooy julli takusan mi ngi noonu gannaaw ba yonente bi alayhi salaam ne ñu nodd ñu nodd mu julli tàkkusaan doogu julli timis fekk timis jot na naka noonu Suleymaan ay waaye ñoom de fexe nañ ba ma fàtte ba ma it lii itteel na ma ci fàttaliku gi may fàttaliku sama borom ba mu daal di dem mu ne delloo si leen ma fas yi ñu delloo si fas yi mu joxe ordre nañ rey fas yépp mu ngi noonu nañ rey fas yépp mu jaamoo ko yàlla lu tax ndax fas yi ñoom ñoo nara ñom ñoko itel ba mu faat la nga xamne muy ak julli loolu in mbokk julit ku ne ci ñun war cee bàyyi xel rawati na yéen la jeunesse mbokk ab match de football bu taxee ba nga faat julik takusaan def nga musiba bu rëy ay yéen jigéen ñi maquillage wu mariage ba lang ga bu taxee ba nga faat julik takusaan def nga musiba bu rëy yàgg dégg ngeen ko ay yoon rasul sai sallam mu ne man faatatu salaatu al-asr fa kaannama wutira ahluhu wa maalu ki nga xam ne fexe na ba faat julik takkusaan moo ku mel ni dañoo xëyoon rek njabootam yépp dee alalam yépp yàqu loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareel mooy lépp loo xam ne daf laa nar a itteel ci jaamu yàlla nga lawaay sori ko Omar ibn Khattab amoon na téere jardin bu rafet bu baax mu nekk ci bis di liggéey di liggéey ba tàkkusaan passé Omar ne bisimilah jam jardin mi ngi may nar a fitnaal <coughs> dafa woo la nga xam ne mooy faqir yi may leen jardin bi ngiree loolee bañ a doon loo xam ne lu koy fitnaal lool it dañuy ci bàyyiloo xel ndaw ñi ci lépp loo xame ni nii daggan na naam baax na ndax Souleymane def na xubbal xayr li muy def baax na waaye nag su demee bay tëlli ci julli mbokk loolu musiba la baaxatul amma nak ka nga xamni la ko yitteel ci julli moy ay dem moy ay carte ak mooy ay tiaxan koku moom waxuñu ko waye même lu bax sax fexel ba bu mu la ci julli ya ayuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah sa commerce sa njabot bu mu dex mukk sa digganteeg ngay fat julli mi ngi noonu cheikh ousman wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala واغفر لي وارني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا لَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ بارك الله فيكم kon suñu boroom mu ni wa laqad fatanna fatanna suleyman ñun dey fitnaaloon nañu suleyman wa alqaynaa ala kursiyihi jasada ñu sànni ca fëtey ba mu doon toog lii nga xam ne mooy benn jëm summa anaab gannaaw ba mu daldi di tuub delluwaat ci yàlla qaala rabbi ixfir mu ne ay sama borom jéggal ma wa hëb lii mulkan laa yanbaghi li ahadin min baadi ca nga may ma nguur goo xam ni du yeey yeyeti ñeel kenn ci sama gannaaw innaka antal wahhab yow yaay aji maye ji fa saxarna lahu riiha tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaab noonu lañ ko tàggatale ngelaw ga muy daw ci ndigalam ci ak dal fu mu bëgg dal mi ngi noonu xaysu asa suleyman bëgg rek mu yóbbu ko fa mu yóbbu ko fa mu dalal ko fa wa shayatin kull banna'in wa ghawas mu ñëmay ko yit ci shaytani jinne ya bépp façon tabaxkat ak bépp façon ku koy xuusal ci géej yi di génne lu ko neex ci ay lu'lu ak ci marjan wa akharina muqarranina fil asfar ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen enchaîner ñooñ leen ca la nga xam ne mooy chaîne ya washiya ni naam haza atauna lii de mooy suñu may fam nun baaxe ci ku la neex aw amsik wala téyel lu la neex bi geyri xisaab amul benn réglé bu ma la ci réglé mu ngi noonu wa inna lahu indana la zulfa dana ñeel suleymaan ci ñun ak jege gum ñuy jege wa xusna ma aab ak gën jaare fa ci delluwaay yowm alqiyaama wazkur abdana ayub waaye fàttali ko dir suñ jàmba ayub isnaada rabbahu jamono bi muy woo boroomam anni ya shaytan bi nusbin wa azab shaytan day laale ne ma bi nusbin ci coono ci sama ci feebar ci sama yaram wa azab ak it mbugal boo xam ne mi ngi ci sama biir xol suñ borom ne ko urkut bi riji lekk kët daal ci sa tànk bi haza muxtasalun baridun wa sharab lii day day ak cangin la mi ngi noonu boo xamee ni nii dafa sedd ak loo xam ne dañ nga cay naan mi ngi noonu <coughs> mbokk suñu boroom mu ne fitnaal na Suleymaan alayhi salaam sànni ca tronam ba benn jëm gannaaw ba mu tuub dellu ci yàlla loolu mbokk boo demee ci mufassiruuna yi wax nañ ca ay wax yu bari bari bari donte ne la gën a mucc ayib mooy texte bu leer buy teqali looli jafe na am na ci allahuma da ci gën a nekk gën a jege dëgg mooy la nga xam ne ni albuxaari solo na ko ne yonent bi yàlla suleymaan daf ne woon amoon na lu ëpp presque lu jege téeméeri jabar mu ne sama jabar yi yépp nag daan jur doom yoo xamee ne nii ah daañ jihaad fi sabilillah am ñuy naan sax ci benn guddi la waxoon ci lay ànd ak ñoom wallahu alam suñu borom yàlla dogal suleymaan mbooleem jabar yi kenn amu ci doom kenn lu dul kenn kese ba pare doom ba paralysé ko paralysé tëdd benn place moo tax borom bi ne jasada loolu kon am na ñuy wax loolu am maa nag ñuy wax naan benn jinne moo sàccoon jaaroom kaza wa kaza loolu gàmmu ko di loolu moom beneen affaire la bon ala kulli xaal suñu borom daal nee na fitnaal na suleymaan donte ne fitna bi détaillé ko suleymaan tuub dellu ci yàlla comme naka baayam defe woon suñu borom yàlla baal ko comme na mu baale woon baayam jegeel ko comme na mu jegeeloon baayam ndax li mu wax ci moom rek loolu la wax ci ci daawud alayhi salaam inna lahu indana la zulfa wa xusna maab léegi nag suleyman alayhi salatu wasalaam gis nañ ne tuub ne dellu ci yàlla rawatina bakkaar bu grave mu defoon te mooy topp na fas yi ba fas yi tee ko julli tàkkusaan mu ne ay yàlla nag maa ngi lay ñaan nga may ma ngóor goo xam ne keneen dootu ko am gannaaw man yow yaay aji maye ji te it mbokk heure booy ñaan yàlla ñaane ko le mingoo ak moom masalan Suleymaan waxul yàlla may ma ngóor yow yaay jéggale may ma ngóor yow yaay nangam dee dafa mi indi la méngangoo yaay maye amaa boo ñaan jéggal nga ñaan ah, yow yaay jéggale yërmaane yaay yërë yërëmaate ak tuub yow yaay nangu tuub aaye bu euh, ñaan gu nekk dafa war a mingoog la ngay woo ci yàlla ngir mu may la loolu kon nee na ko innaka antal may ma loo xam ne keneen dootu ko am ñu ngi noonu te it yàlla subhanahu wa taala ca la ko defal loo xam ne keneen dootu ko am gannaawam ba ila yawmiddin waroon bi subhanahu wa taala comme Suleymaan daa jëloon ay fasam yépp rey leen ca yàlla tax ca fas yooyu ñoo doon transporter la nga xam ne mooy armée sunu boroom yàlla nag fayee ko benn ngelaw boo xam ne ci commandement Souleymane la nekk xaysu asaf fu Souleymane bëgg rek léegi dañ ko def jinne yi ñoo ko defaral benn tappi bu yaatu mën naam tappi ba yaatu na comme jàkka ji wala mu ëpp jàkk bi Souleymane fu mu bëgg tukki day jox ordre ngelaw la rek ngelaw li ñëw yëkk ci tappi bi yëkk ci tappi bi yóbbu ko fa ko neex jàngoon nañ ko ca saba xuduwuha shahrun wa rawahuha shahrun mooy ngelaw li daana ko yóbbu six cent kilomètres delloo si ko ci même jour muy un million de muy muy mille deux cent kilomètres mu ngi noonu loolu di benn xéewal muy fay fas ya gannaaw ba suñu borom yàlla itamit may ko mu commandé jinne yi te moom rek la ko yàlla defaroon mu commandé jinne yi di leen tabaxloo lu ko neex jàngoon nañ ko ci saba mi ngi noonu ma yasha min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawab wa quduri rasiyat di tabaxal ay taax di tabaxal ay ay ay ay bagaan yu rëy rëy tabaxal ay kawdir di tabaxal ay statue ila axiri borom boobu wa taala ni ak ñeneen ñoo xam ne moo leen jàpp njoñ leen te mooy bépp jinne boo xamee ne nii mooy ni ndigalu Suleymaan Suleymaan am na kattanu jàpp ko séene ko téye ko mi ngi noonu lii lépp di wane mooy booru ca mbokk buur fokk nga boole ñaar pour sa nguur mën a mat fokk nga boole koo gërëm teral ko koo mere duma ko buur bu amul yar bu muy duma kooku matul buur mi ngi noonu matul buur looloo tax suñu borom ni am na kattan ci xiiwal yi ubbeeku na ci moom waaye amoon na it kattanu pouvoir ku jadd nguur gi mu teg ci yow yoon moo tax wa axarina muqarranina fil asfal borom bi ne na ko Souleymane mi ngi noonu def naa la nga nekk buur commandé nga jinne yi commandé nga ngelaw yi may naa la lu ma dul may kenn sa gannaaw léegi nag ngóor gaa ngi noonu bu la neexee ku la neex joxal fam nun aw am si lu la neex téyal ci alal ji kenn du la ko xisaab yawmal qiyaama kenn du la ko xisaab yawmal qiyaama waaw gaa yi bala ñoo jàll ñu xam ni kon lii moom la ko jagleel waa suñ caam yow million bu yàlla teg sa loxo nag milliard bu yàlla teg sa loxo nag vingt mille yàlla teg sa loxo nag lañ la ko xisaab yowmal qiyama rasul salaa sallam nee na amul ku ñëw yowmal qiyama lu dul alal joo ma sa jël dañ la laaj lii foo ko jëlee gannaaw ba foo ko dépense dañ la ko laaj ama suleyman yow sa nguur kenn du la ko laaj bi xëyri xisaab mais gars yi ndax booba fekk ne suleyman ca la commencé def lu ko neex déedéet mbokk julit yonent yàlla yi mel ñu noonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yàlla wàccee ci moom ne ko li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbika ma taaxar bis ni ki tey baal naa la loo mës a def baal naa loo nar a def gis ngeen avant loolu yedd na ko ay yedd ca ama yedd ko ay yedd ca la nga xam ne ni asara euh, badr ak yeneen dama noonu waaye suñu borom mun na ko léegi jox naa la carte blanche loo mën a def baal naa moom rek moo ko mës am mbokk bisu keroog la yonent bi gën a yokku jaamu yàllaam bisu keroog la gën a yokku jéggulam bisu keroog la gën a yokku ak toroxlam am déet yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku mi taxaw di naafila di naafila ba tànkam yi new yi mu boole koog jooyam ya ba boo nekkoon ci biti néeg bi da ngay foog kaddir mooy bax ci biir ba yaay Aysa ne ko ay yum yàlla yón ndax loo dalal sa bopp yàlla baal na la loo ma sa def ak loo na def mu ne ko afala akuna abdan shakura su ma yàlla defalee lu mu defalul kenn ndax man du ma ko jéem a defal lu ko kenn defalul te wallahi ñi nga xam ne dañoo jàpp nee ne ñooy ay sëriñ lañu ñooy jëme ci yàlla ah waaye ñoo waroon a jiitu ci jaamu yàlla ñoo waroon di ubbi jàkka yi di tëj jàkka yi ñoo waroon a jiitu ci njàngum alxuraan ñu koy dégg ci yow guddeeg bëccëg ñoo waroon a jiitu ci lépp comme nee nañ ñoom ñoo dox diggante nit ñi yàlla kay mi ngi noonu waaye la la xew moom yéen ñëpp gis ngeen ko suleymaan lii ma ko defal ci àdduna yépp yàqalu ko digganteem ak boroomam dara teewul jege na yàlla ci dana ko ñeel gën jaa delluwaay yowmal qiyaama te loolee mbokk suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko jibril ne ko demal na muhammad su neexee su ko neexee ma def ko malikan rasula mu ubbil ko mboolem trésor suuf def ko buur te du ko yàqal sama digganteeg moom dara mi ngi noonu wala boo tànnee nekk jaam nekk yonent bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jibril man dama tànn nekk jaam nekk yonent yaa ngi dégg lu waral loolu mooy mbokk àdduna yonent bi sallallahu dane ah, su doon tane àdduna dafa toll ci yàlla nekk janaha ba'uda ma saqa minha kaafiran sharbatan ma mi ngi noonu bu doon adduna ak li ci nekk yépp dafa mel ci yàlla ne laafuyoo yàlla du ci may yéefér ab kaas maadaama yàlla noonu la soofantale adduna loola tax yonent bi alayhi salaam noonu la soofantale woon adduna moom tamit nanguwul woon jël nguur gi ko yàlla di proposé doonte ne du koon yàqal ad dara lan daan wax maa liya wali dunya illa ka rajulun istazala taxta shajara suma tarakaha wa yartaxil lan moo ma ñeleeg adduna man dama meloon na ku doon romb ci benn yoon gis benn garab ma noppalu fa tuuti daal di jàll dem sallallahu alayhi wa sallam looloo tax jamono yi nga xam ne empire romain empire perse du ñu nelaw guddi ngir dégg aw turam mi ngi nekkoon ci néeg yoo xam ne nii yàlla na yàlla yërëm imam ibnu musayyab mu ne li ma gën a naqadi kër yonente gi ñu toj waroon nañoo ko bàyyi mu nekk euh, musée ba jullit yi ñëw gannaaw xool yonente bekki sahaabam ci yenn façon néeg lañ doon fanaan mooy néeg yu xat yoo xam ne ay ban lañ ko defaree ay date ma lañ ko lañ ko yette sallallahu alayhi wa sallam jamono yi nga xam ne nii deux mille ans avant presque sax firaw naa ngi tabax ay pyramide ak yépp waaye noonu la jàppee woon nekkoon exemple suprême looloo tax ba xatta yéefir yi gannaawam tagg nañ ko yéen ñëpp yéen a ngi gis ki bindoon les cent personnes les plus influents du monde xam nañ ni Muhammad alayhi salaam mosu ñoo gis ku mel na moom la la nga xam ni ay victor hugo da na ko tagge mune moy ben roi bu ñu mas a xam ci aduna diriger empire ba pare wa këram di tegal ay fan di fande du ñu am ñu réré sallallahu alayhi wasallam kon lolu yàlla defal suleyman mayon na yenen tiba sa mu nek moom nek bour sa nga fa dire ka da koy jox lam jox suleyman ndax lam jox suleyman du ko jox kenen rasul sallallahu alayhi wasallam masnay nawafil gudi iblis shaytan bi ñoo feeñu ko ba ñëw am benn jumu safara dëkk ko ci moom yàlla def mu jàpp ko bi ñu xëyee suba mu ne yonente ba yonente alayhi salaam ni démb day benn seytaane mi ngi ñëw ci man yàlla dimbali na ma jàpp ko dem naa sax ba ne dama koy yeew ci poto jàkka ji waaye ma fàttaliku la sama frère ba ñaanoon Souleymane looloo tax mu bàyyi ko mu dem gis ngeen looloo tax mu bàyyi ko mu dem ala xaal mbokk li luñ ci déggee rek mbokk mi ngi noonu mooy bu la yàlla mayee xéewal xéewal googee na la jegeel yàlla bañ laa soril yàlla tey li ëpp ci doomu aadama yi isa anama allahu alayhi arada wa na abi janibi dangay gis ñoo xam ne bu leen yàlla xéewalee xeeb nañu sax di dëkk ak doomu aadama yi dañuy dem foo xam ne kenn du leen fa mën a fekk mbokk loolu musiba la borom bi bàyyi loolu daa di nag dellusiwaat ca beneen jaam mu yonent yàlla ayuba bari di ko tegale ci ci ci ay place ak Ayoub mu nekk ñaari extrémité Souleymane mi ngi nekk ni ak ngóoram commande jinne yi commande lépp yonent yàlla Ayoub yàlla def ko yonent ba pare natt ko natt ko ba mooy lan may ko may ko alal may ko njaboot xëy suba natt ko jël alal ji ca mbokk ñàkk moo metti waaye ñàkk gi gën a métti mooy ñàkk gannaaw ba nga amee yal na yàlla musal ñu ci njaboot gi ko yàlla mayoon yàlla jël njaboot gi yépp dee njaboot gi yépp dee ca loolu it mbokk xam ngeen dara gënu ko metti ñu ne déete waay suñu borom yàlla roof ko feebaru dermatologie ba mënatul dem fenn yaram bi feebaru der yaram bi yépp mënatul dem fenn waaye lii lépp mbokk ayuba alayhi salatu wasalaam lan la doon wax allahuma anta lazi atayta wa anta lazi axasta yàlla yaa joxewoon woon yaa jël njaboot gi ah yàlla ya ma ko joxoon yaa ko jël alal ji yaa ma ko joxoon yaa ko jël wér gi yaa ma ko joxoon yaa ko jël waaye gannaaw ba ñaan na borom bi subhanahu wa taala daaji ne ko seytaane day laale ne ma ca la nga xamee ni mooy feebar ak ci sama yaram muy nësut azab ak loo xam ne nii ci sama xol la wax nañ ci lu bari li tax ayub wax lii ci ay xaritam ñoon di waxtaan xëy na loolu dafay guddal dars bi ala kulli xaal ci gàttal dellu na ci yàlla bi mu delloo ci yàlla ñaan yàlla te loolu it mooy waree fi bépp jullit ay waay heure bu la lor ñàkk la jaaxle la tiisu xool la feebaru yaram la delluwoo sa borom borom ba ñu ca ca an bi yàlla mu wax noonu rabbi massaniya durru wa anta arhamu rahimin yàlla lor dal na ma yaa arhamar rahimin rabbi masini shaytan bi nu bi azab bi nusubin wa azab ca loolu moom la ñuy tudde mbokk ñaan yàlla a tawassul ila allah bi bi bi bi mooy ñaan yàlla ci wax ko rek sa nekk ni ngi noonu gis ngeen yonent yàlla Muusa ba mu demee ca Madiyana ak tiisam ak jaaxleem daa dem ca garab ga daa dem rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir ay yàlla day loo ma yónnee day aajo woon naa ko de gis ngeen jeex na ko may ma borom bi subhanahu wa taala ci nekkul la ayub jógal nga këdd suuf ndox dana génn ndox moomee sangu ci ndax fièvre dermatologie la yoroon naan ci te loolu mooy tous les dermatologues du monde boo demee daal di bindal looy naan bindal la looy looy diwoo wala looy sangoo bi ko ayuba naanee yaram bi yépp daal di wéraat mu mel comme nam meloon léegi nag borom bi subhanahu wa galaat ko waat ko la nga xam ne mooy alal mi ngi noonu Cheikh Ousmane suñu borom mu ne wa lahu ahla noonu lañ ko maye ñeel ko njabootam nga wa mislahum ma'ahum ak ñu tol ne ñoom ànd ak moom rahmatan minna lii di yërmaane bu bawoo ci ñun wa zikra li ulil albaab mu nekk di fàttali ñeel borom xel yi wa xus bi yadika dixsa jëlal ci sa sa loxo bi benn say say go rek ndakaaru xam ndax dina xam mooy ay matt yu bari ñu daj la mooy aw say fadrib bihi nga doore ko wala tax nas bul bul sa waat gi nga waatoon mu ngi noonu bu ko sànq inna wajadnahu sabira ñun de fekkoon nañ ko muy aji muñkat ni'mal abdu jàmbu baax a ngoog innahu awwaab moom da daan bari di dellu ci yàlla waskur ibadana ah, fàttalikul suñu jaam yi ibrahim wa ishaq wa yaqub ñooñe nga xam ne ulil aydi wal absar boromi kattan la ñu woon ay boromi loxo ay boromi kattan ci jaamu yàlla waaye wal absar boromi xam-xam yu wér yoo xamee ni lañ ko tegoon jaamu yàlla ga mi ngi noonu borom gisin yu wér inna axlasnahum bi xaalisatin zikra daar ñun ñoo leen jagleeloon ci jagleeg fàttaliku kër ga muy aljanna وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار نعم دي نيكون ننتنون تنجا خميني تان ننجلين نيونيك أي تنف من نونو واذكر إسماعيل وليسع وزل كفل فاتلك السماء جامية إسماعيل وليسع زل كفل وكل من الأخيار كيف تتنف لبك هذا ذكر لي لي فاتلل وإن للمتقين لحسن مآب ما dana ñeel ña ragaloon yàlla gën jaay rafeti delluwaay jannati adnin mufattahatan lahumul abwaab ajjana yi sax ba faw yoo xam ne dañ ubbi ñeen leen bunt ya mi ngi noonu mbokk suñu yonente yàlla ayub alayhi salaam gis ngeen ñaari jaam yi yàlla tegale kee ma nga nekk am nguuram di Suleymaan kii mi ngi tëdd benn place amatul njaboot amatul dara ba bu dee la nga xamee ne lii wér na ci xissa bani israil mooy benn jabaram la dese woon jabar jooju moo doon dem di débrouiller ngir ñu am lu ñu lekk muy jabar ju baax te it xamal ni kaw suuf doomu aadama dajalewu fi lu gën jabar ju baax mi ngi noonu jabar jooje benn bis léeg-léeg mu dem am léeg-léeg mu ñëw du ñu am benn bis rek mu ñëw indi ay ñam yu neex ayubu ne ko waaw foo jëlee lii mu ne ko ah, dama wër wër wër oo ma dara ma daal di dagg sama karaw jaay ko ci doomu patron yooyu ñu fay ma ca laa jënde lii ayuba mer mer mer na ko yow doo muñ kët yow doo muñ kët bis bu ma yàlla génnee suma natt bi danaa la dóor téeméeri ya loolu nan nga koy defe gis ngeen loole da gis ne Euh, la ko ci yóbbu woon mooy yërëm gu mu am ci ci Ayub mi ngi noonu ca ñu xam ni it mbokku jigéen du wat boppam jigéen du wat boppam xatta ak màkk sax dañ naan dangay ngay dagg tuuti sa karaw rek lu tollook catu baaraam mais jigéen du wat loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal ci yàlla Ayub yàlla xëy na bis ba mu ko soobee nangul ko ñaanam naan na yaram bi gën a rafet nam meloon avant muy feebar yàlla sotti ko ñu ne ab taw la ko sotti taw ay or yu mel ni ay njéeréer ñu sotteeku ay ayuba duy ci la ko neex ci or gannaaw ba suñu borom yàlla avant ayuba di dugg ci natt bi masalan amoon na fukki doom masalan suñu borom yàlla may ko ñaari fukki doom delloo ko fukki doom yi jëkk yi tegal ci yeneen fukki doom muy ñaari fukki doom xanaa gaa yi léegi kër gi neex de ñu ngi noonu alal jaa ngi ni doom yi dellusiwaat nañu léegi nag suñu borom na ko nag sa jabar ji loolu mu def defu ko woon ngir bon da koo defoon ngir jërëm la waaye comme waat nga ne da ko dóor téeméeri yar <coughs> bul firi sag waat dajalil téeméeri yar yépp yëkkatu ko benn yoon dóor ko ko benn yoon mu jeex bu ko defee loolu waat gi bañ a deñ boroom xam-xam ñu ne ñoom kafaaratul yamin amul woon ci seen sharia amaa lislaam suñu borom yàlla subhanahu wa may nañu kafaaratu aymanikum te mooy dina ne heure boo waatee dinaa def dara gannaaw ba ngi gis ko bañ koo defe gën su boobaa dañ nan la kafaaraal mooy fukki miskin nga jox leen ku nekk lu tolloog ci rëb ceeb walla nga woddu leen jox leen yu mën a julli soo amul nga woor ñetti fan amma sharia yóbbu loolu amu ci woon kon dóor ko téeméeri yar yi benn yoon mu jeex borom bi nag subhanahu wa taala ni <coughs> ayuba ah, de mi ngi noonu fekk natt woon nañ ko fekk muy muñkat loolu it benn message la bu yàlla di yónnee nga la waa yow xam ne su neexee yàlla alal jiw la may bu ko neexee jël ko de wéer gis ko neexee jël ko de njaboot gis ko neexee jël ko de su boobaa nga la waay muñal muñ gu rafet borom bi nee na jàmm bu baax a moom daawul deñ di dellu di tuub di dellu ci yàlla mi ngi noonu borom bi ne wëlbatu ko jox ñu ay misaal ay yéen mbokk julit suñuy misaal mooy ci yàlla tànn woon yónni ko ci ñun ñooy ñuy misaal mu ne fàttalikul sama jaam yi di benn famille Ibrahima moo jur Ishaq Ishaq jur Yanqub ñuy benn famille suñu borom nee nañ nekkoon nañ ulil aydi wal absar mooy dañoo mënoon a jaamu yàlla waaye teg ko ci xam-xam mbokk nit ñi ne ñoo nekk ñetti façon doomu aadama am na koo xam ne nii mu ngi jaamu yàlla kemtalal kattanam wallahi da ngay gis koo xam ne li may daj ci diine ci genn wàll ga dajoo ko li muy joxe ci alalam genn wàll ga joxe ko joxoo ko ba pare ndeysaan du julli du wooro dangay xam ne kii day mi ngi def effort mais li muy def tegu ko ci xam-xam nga gis koo xam ne jàng ni diine dem na Arabie Saoudite dem na Kuwait fu ne dem na fa am diine xam diine ba pare topp bànneexu ba kanam kon il faut bala la yàlla gërëm nga boole ñaar mooy xam jàng ba xam bokk min ulul absar ba pare nag góor-góorlu jaamu yàlla bokk min ay aydi te mooy jëfe jaamu yàlla googee mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ne ñii day sama jaam yi man maa leen jagleeloon ñuy fàttali ko ajjana fu ñu mën a toll te mbokk jullit gis ngeen sunu jeunesse bi sunu jeunesse bi dañuy nekk di mason di menuisier di jaay ay sóore di dajale par benn dajale benn dajale dajale ba am cinq cent mille jël seen bakkan teg ci océan bi ne Barzak wala Barcelone di gis ngeen ko dee waay loolee lan moo ko lan moo leen yóbbee ñu àttana toog pendant dix jours ci glace gi ci neige bi affronter des bal réelles yu jóge ci gars yi loolu ma ko waral mooy xel mi mi ci nekk mooy dugg biir Barcelone wala dugg biir Italie ndax jàpp ne bu fa duggee rek coono addunaam jeex na <laughs> mi ngi noonu naka noonu it tamit mbokk yu yonent yu jëkke ak gaa yu baaxee yal na yàlla boole ñu ci seen mbir yépp moo nekkoon aljanna nan lay def ba dem aljanna nan lay def ba dem aljanna leneen li ci diggante bi amul problème mi ngi noonu li ci diggante yëpp yàpp c'est pas un problème nan lay def dal ba tabbi aljanna inna akhlasnahu bi khalisatin zikra dar mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala neen dañu bokkal min al mustafayn ñoom ñoom yàlla leen tànn al mustafa mooy ku yàlla tànn ñu bokkoo ñit ba leen yàlla tànn it dañoo yeyoo woon ñu tànn leen ñu bokk min a axyaar borom boobu subhanahu wa taala nee na ca la bokkoon Ismail Alyasa Zalkifli ñii ñëpp ca la ñu bokkoon borom bi subhanahu wa taala nag ne lii ak fàttali la ngir képp ko bëgg référence xamal ne ñi ñooy say référence cay xam leen ni ñi ragaloon ñi ragaloon yàlla day gën jaa rafeti delluwaay moo leen di xaar yowmal qiyaama ca mooy àjjana joo xam ne boo duggee doo génn suñ ñëwee dañuy buñ ñëwee lañ leen di doogu ubbil la nga xam ne mooy bunt yi te loolu mooy teraanga boo xamee ne nii dañ koy defal gan gu tedd bu ñëwee ñu ñëw ubbil ko bunt yépp mu ngi noonu euh, comme ni nga xam ne noonu la saxee ci sunna rasul sallallahu alayhi wasallam nee na man la yàlla di jiital maa ngi dem àjjana su ma ñëwee fëgg bunti àjjana malaaka yi ne ko kan la ma ne muhammad ñu ne yow la yàlla waxoon bu ñu ubbul kenn avant yow sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu cheikh ousmane والتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون بارك الله فيكم قال سني بروم جل وعلا مني والجنة متكئين فيها نغسون تأجنا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نغا فيو تفري بري يو عندك نان وعندهم قاصرات طرف أطراب دانا نيك تنيوم jigéen ñoo xam ne seen gis ya ña ngi ko gàttal ci seen borom kër ya doon ñoo xam ne ñoo yemoo ci atak lépp haza ma tuuaduuna li yawmi alxisaab lii day mooy liñ leen di dig ñeel bisu reg la ba in haza la rizquna ma lahu min nafaat lii de mooy suñu wërsëg ñun yàlla du ko ñeel benn jeex du jeex ba faw haza wa inna littaaxiina la charra maab mi ngi noon de ñeel na nag ña nga xam ne dañoo bewoon la gën jaa ñaaw ci delluwaay jahannama yaslawnaha sawara soo xam ne dañuy deñ di ca tabbi beelu ca fa bi'sal mihaad aka bon lu ñuy lay haza mi ngi noonu falyazuquuhu nañ ko mos xamimun wa xassaq muy ndox mu tàng jër ak dëtt joo xam ne nii dañ koy jaxaseeg ndox mu muy xassaq wa axaru min shaklihi azwaaj ak leneen yeneen yoo xam ne dana mel ci mbugal ni xamim ak xasaq yoo xam ne moom it peer lay doon ci mbugal yi haza mi ngi noonu ba tey fow fawjun muqtaximun maakum benn mbooloo boo xam ne daan juuru ànd ak yéen ci sawara la marhaban bihim ewaay ñooñu day ak dalal jàmm du leen ñeel innahum saalu naar ñoom day ñuy beelu ci sawara la doon ña fa jiitu ne qaalu bal antum la marhaban bikum ñu ne yéen it day dalal jàmm du leen ñeel antum qaddamtumuhu lana yéen yéen ñu jiitalal safara si bañ dugg fi fekk si fa bisa al qaraar aka bon saxuwaay boobee nga xam ni wa sawara daan ci mujj sax qaalu rabbana man qaddama lana haada ñu ne ay yàlla képp ku ñu jiitalal lii fa zidhu azaban difan fi nnaar yàlla na nga ko dolli mu ñu fule ci biir sawara mi ngi noonu mbokk waa ajjanaa nga ni borom bi nee na ña nga soonu ca seen lal ya di commandé lu leen neex ca la nga xamee ni ni mooy ay fruits ak i naan commande boo xam ne du ànd ak facture da nga noonu commande boo xam ne du ànd ak facture lu la neex commandé maa ngi nekk ci ñoom xaasiratu taraf comme niñ ko jànge woon ci saar yi jiitu xaasiratu taraf mooy jigéen ñoo xam ne seeni jëkkër rek la yem seen i jëkkër rek la ñu yem seen i jëkkër moo leen di dàqal ci àjjana am ñu firee ne xasiratu taraf mooy dañuy gàkkal gis-gis te mooy ji góor ña fa nekk seen jigéen ñi dañ leen yéem ci taar ba nga xam ne moom la leen yàlla taaral allahuma mbokk ah, la nga xamee ne nii mooy yow jigéenu àdduna yit nga la waay nekkal xasiratu taraf jigéenu adduna yemal ci sa jëkkër del xool sa jëkkër yem ci moom moytu di xool góori jàmbur yi waaye yow góori jàmbur it ñoo koy def e waaye dangay dem jël télévision grand écran ñëw tegal say soxna mbër yi nga xam ne lekk ci rek fonde dong la ñu def benn futt futtaaral nekk di euh, euh, euh, bol de seen kanam musiciens yi nga xam ne nii dañuy nelaw ba heure bu leen neex ñee nga xeesal ñee nga nekk di leen woy di leen charmer soxna si bu nekk di seetaan nañ ba moom tàng bu xoolee xool suñ cam na ah cam man ma dara <laughs> yaa ngi de waaye suñ caamit naka noonu itamit bu nekk di seetaan jigéen ñu taar yooyee nekk ci télévision yi nekk ci seen yàq bu xoolee fat caamit day jàpp ne amul dara yooyee kon ñu bàyyi ci xel bu baax bukki bañ na ko waa bukki noo dafa ba sa soxna si bëgg la mu ne bu fekkee dem rek mi ngi noonu jeex jeex na ala kulli xaal mbokk góor na fexe di yemele ay bànneexam ci ay soxnaam jigéen yemeleel sa bànneex ci sa borom kër qaasiratu taf borom boobu nag subhanahu wa taala ni waa àjjana ñëppay tolloo jigéenu àdduna amul fiir ku nekk sa décor mooy sa décoru morom say at mooy sa atu moroom ñoom ñëpp kawaakib la ñuy doon fi jigéen ji ba ay weenam mat sëkk commencé gul daaw ñooñu mooy àjjana ñoom ñëpp a yem aj noonoo amu fa fiiraa nga amu fa atra borom boobu nag ne lii de ñu ngi leen koy dikk ngir kañ bi su xisaab lu mu lay jàngal bala ngaa dugg àjjana nañu xisaab la de hada ma tuuduuna li yow mi yawmil xisaab looloo tax ku nekk la ngay jëf fii xool ko borom boobu nag ni mi ngi noonu suñu wërsëg ci àjjana du jeex ba faw dara dafa fa abadan abadan faw dund ga fa nekk du jeex wér ga du jeex lekk gaak naan yàq lenn dafa fa jeex maaluhu min nafa borom bi nag ci la wëlbati ko ca këru musique booba ne mi ngi noonu nag ñi woon ci kaw suuf ñoom gën jaa bon ci delluwaay dana leen ñeel jahannama moo leen di xaar aka bon lu ñuy lay taayoo nañ ko mos muy ndox mu tàng ànd ak dëttu ji tàng bu ko defee ak yeneen mbugal yoo xam ne ni yaatihil mawtu min kulli makan fu ne dee la koy jëlee min shaklihi azwaj borom bi subhanahu wa taala jëkk a jóoru maam ya ba maam ya jóoroo ña nga xam ne ñooy sud ya topp leen dañ ne muqtahimun dañuy jóoru ndax malaaka yaa nga jóge fële ak seeni bëmb seen seeni de ñuy daw di jóor seen bopp ci biir sawara bu ko defee borom bi subhanahu wa taala ni ñi nga xamee ni nii ñoo fa jiitu ne sët ya tey day amu leen dal jàmm de li fekk fii ngeen na ko fekk fi dalal jàmm de amu leen sët leen boo xool ma leen yéen it yéen maam yéen it day dalal jàmm ju leen ñeel ndax yii na tax ñu dugg sawara si dañoo nekkoon naan inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun yii na ñu sànq ba tax ñu dugg lii ay yàlla ñu ngi lay ñaan sunu maam yi nga xam ne ñoo ñu sànq ñoom jox leen duubul mbugal ci kaw suñu mbugal waaye boo demee suñu borom ci suratul araf mu ne li kullin di af yéen ñéppay am duubul mbugal mbokk ñaari kër yaa ngi nii ci suñu kanam ñaari yoon yaa ngi nii ñu tiim najidayni imma shakiran wa imma kafura ku sant yàlla jaar ci ndigalam àddina lay xaar ko bew jaar fa la neex safara lay xaar yàlla na yàlla saxal ñu ala siratul mustaqim defal ñu àjjana mi suñu wàccu waay musal ñu min al maghdubi alayhim wala dalin te musal ñu ci mbëgalu sawara wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in xam naa dañu lebat question yi encore ba suba inshallah barakallahu fikum